Omeuge Diagne ñu ngi lay nuyu. waaw yow consultant nga sa xam-xam màcc ci wàllub làmb ngay entraîneur làmb nekkoon tamit directeur technique régional euh, ñu wax ci wàllub làmb bi nga xamante ne dañ la ci ràññee gannaaw kon tekk-tekkaral bu métti mbasum Covid 19 bi waral ko làmb daal di dooraat ci Sénégal combat bu rëy buy war a sax dooraat yëf yi muy war a dox diggante Eumeu Sène ak lak de Guiers numéro 2 ci dibeer gi ban xeetu combat la amateur yi mën a xaarandi euh, ni ki ëllëg. ne combat boobu dina nekk euh, combat bu neex bu ubbeeku bi nga xam ne tey ubbi na lamb ji euh, certes semaine passée am na journée bu am ak ay mbappat yu am mais bii dafa raw mu nekk tombé ak 4 avril mu nekk euh, fête del l'indépendance fête de la jeunesse et de la nation de la jeunesse surtout hmm. donc armée nation donc mu nekk loo xam ne tey ñoom ñaar ñëpp ku si nekk war nga mu wane sa bopp et surtout que pandémie bi bu ñu ñoom toog nañu tolloog ci ñaari at yoo xam te ñu sëguñu pandémie bi déjà def na un an et quelques sans compter jafe-jafe yi amoon bien avant donc euh, boo ma leen mu nekk combat foofu ne ubbeeku na si ñoom ñaar ñëpp parce que Eumeu Sène nekkoon na euh, presque à à deux ans trois ans pour dem retraite Lac de Guiers aussi soxla woon na jël jël revanche am donc tey bu leen Gaston Mbengue boole yaakaar naa ne ñoom ñaar ñëpp ku si nekk dina ko jox sa ak ak comme ça mu nekk combat bu neex bu ubbeeku. ci combat boobu ba tey lan nga mën a jàpp ni mooy euh, force ak faiblesse ñaari mbër yi. waaw ku ci nekk nag am nga ses qualités parce que mbër bu nekk euh, ou bien athlète bu nekk ou bien ko day am loo ne mhm. nag mooy sa gëm-gëm seet na mooy préparer sa combat seet nag principe yi yan principe laay jël yan méthode laay jël ban organisation laay laay laay def donc loolu lépp ku ci nekk am na ay jàngat am na planification bu ñu def ak seen entraîneurs yi yi nga xam te ni bi Gaston jëlee ni combat yi ak bi ñu toogee jàpp naa ne toog tooguñu di xaar xaj na ñàkkul ne ni ñuy doon planifier xaj na diggante deux mois trois mois quatre mois pour jëm ci combat ñàkkul ne def nañ ko parce que ay mbir yu expérience la. Hmm. ku mel ne Ama Sène na ba bëre ak. Euh, l'équipe nationale dem au niveau CEDEAO je crois que tey nekk na mbër mu xam te mbër mu xarañ la ci wàllu ndax euh, ndaka jekki aussi euh, la de guerre téléwul parce que euh, buñ nga xamee léegi ñaar defet la am defet bu njëkk am bi ñu ràññee teg ko ci suuf mooy bu ama seen bi bi bi mu am moom Modou Lo te si abet c'est des ay roi la ay règle mu am mu am ci defet mhm. muy deux defet donc ama seen am na par si ma juumul am na sept defet donc loolu lépp nekk na combat bu ko jëm dañ koy bëraale nag parce que Eumeu Sène bi mu jógee ci defetam bi mu jógee ak euh, Modou mu humilié ko vraiment di manière que kenn xaaru ko woon. Mhm. Euh, ja am na ci ay jàngat. Euh, ku digéré na ko donc loolu da koy fàtte da ko ci ginnaaw préparar pour jëm ci la di ngeen xam ne dañ ko tuddee acte trois parce que nul nañu moom daan na ko. day bëgg encore defaat une deuxième fois ou bien la dëggeen fexe aussi bañ am deux deux deux défaites mu jéem a wàññi bi comme ça ñu tolloo bu ko def damaat une quatrième fois pour leen li séparer mais jàpp naa daal combat bu neex lay doon bu ubbeeku ak étage yoo xam ne nii seen entraîneur dina leen ko dina leen ko wax parce que si taxawaay bi dina am solo si distance bi dina am solo euh, ci corps à bi dina am solo ak manière yu bëri bi nga xam ne dañu bëri parce que technique yëpp bokk ñoom ñaan yëpp seen technique kan moo ciy favori. donc favori boo nee favori mooy ki mujj daan ki mujj gagné et par rapport à son expérience Eumeu Sène moo jiitu ci làmb ji moo ko mag bariwul boo gisee ñaar quatre ans au maximum lay doon euh, voire quatre ans voire trois ans donc euh, différence d'âge boobu euh, maanaam amuñu solo trop trop trop poids bi aussi la même chose parce que boo seetee ñoom ñaar war nañu varier entre cent trente cent trente cinq kilos donc bariwul. te buñ ko soxla sa vitesse sa rapidité di nga fexe liggéey ba am au moins peut-être cent vingt cinq cent vingt cent vingt cinq kilos cent vingt cent et cent vingt deux ainsi de suite jàpp naa daal favori Eumeu Sène la parce que moom mooy moo moo moo moo mujjee daan hmm. après c'est machine bi Eumeu Sène aussi bu fàtte na jël na couronne roi des arènes garde ko pendant un an mais euh, la guerre musu ko am hmm. donc euh, loolu war na ne te Eumeu Sène mooy favori hmm. mais il n'est pas dit que ne tu es le favori tu es le meilleur te y a un challenge te la guerre aussi du mansu soxla na jël revanche am parce que mbër bu naqaree bëreel la parce que am na ay qualité yoo xam te nii dañ ko koy collé te en réalité nekkul ci moom parce que nit ki dafa war a mën a xam euh, la phase offensive mooy attaqué lu may attaqué mais da ngay ci xam ne aussi tamit technique de lutte dafa laaj xam nu ñuy nu ñuy moytoo moytu mooy lan fexe ni ñu comme ni ko wax ni ñu wax euh, mm-hmm. rasu mm-hmm. donc se protéger se dégager. mais moytu boobu moytu boobu ñu bëri dañoo jàpp ni euh, moom ay combat dafay taxaw rek wala sax euh, day xaar lu bëri ndax yaakaaroon ni combat bi mën a def euh, ab diir. waaw non parce que Lac de Guiers kuy liir combat la. Lac de Guiers du du ñëw ñëw ñu rek attaque combat am comme à l'aveuglette comme le fait souvent un pressing comme ni ko Sa Thiès di defee ou defee parce que ku nekk ak sa stratégie. Eumeu Sène aussi du kuy ñëw ñëw ñëw attaqué combat donc dina am temps de lecture te euh, Lac boo seetee li ci ëpp moom day lire adversaire am ci kaw ba ñu suuf déplacement bi intention yi l'environnement loolu lépp nekk na éclaté te loolu nit bu ko amee day am solo solo trop trop ci moom maîtriser l'environnement te moom noonu la mel même dama fàtte ci tubaab passe en passe bi buñ mujjee def nii am na temps bu ñu fa def boo xam te nii boo ko seetee moom moo ëpp sax de concentration que Eumeu Sène par rapport ka ñëm di combat bi donc hmm. loolu aussi dafay jouer donc Eumeu Sène nekk na nga xam te ku mën a bëri la ku xarañ la ku technique la surtout na ko lool mën na jaxasoo mën na corps à ko mais am seen doole fi nii maytu leen ko ak aar bi nga xam te ne diggante boobu lu bari jaar na fi donc ñoom ñaar ñëpp ku si nekk daal di nga am nooy tërale sa combat pour mu am ci ndam hmm. euh, combat bi nag ak la ca war a tukkee euh, fan la war a yóbbu ci seen ëllëg ñaari mbër yi. non pratiquement perdant ah, parce que Eumeu Sène nekkoon na à trois ans de sa retraite mais am na augmentation de trois ans encore. Mhm. donc euh, xëy na peut-être que mooy jéem a amaat jéem a dàqawaat jëlaat euh, couronne bi donc seen cercle boobu changé parce boo seetee pratiquement ñoom ñooy seen biir donc la ñu bëri. ñoom seen benn biir dañu bëri à part que ñoom boo seetee sax benn adversaire donc bu commun la ñu bokk muy Modou Mm-hmm. à part ça bokkuñu beneen adversaire boo xam ne bokkoon seen seen parcours boo seetee donc monsieur donc euh, Modou Lo donc lañ bokk adversaire alors que mën na ubbeeku nag ku si nekk bëre ak ñeneen comme ay tafatin mais euh, la rigueur mënul bëre ak ak. Euh, Ama Baldé mënul bëre ak Balla Gaye mm-hmm. donc xam nga déjà c'est écarté mas na bëre ak tafatin en maintenant donc mën na ko jëm su booy aw tabax yi génnee ci booy ñaax. Hmm. mën na ko jël euh, valablement pour aussi Eumeu Sène Eumeu Sène am na ñoo xam ne à part défaite boobu amoon ak Modou soxla war naa jëlal revanche am. mais rien n'empêche mu mu mu bëri moom parce que mu gis fi ñu à chaque fois donc il du alibi ne du bëri Balla Gaye war a bëri Balla Gaye mu nekk mu parce que boo xamante ne soxla dafa war a moom. Hmm. donc à moins mu dem jëliwaat. Euh, bombardier. Hmm. donc ñoom seen bopp seen seen biir. waaw seen adversaire yi mu mu néew. lii dafay wane Omez ni yëf yi dafay gën di tëju diggante VIP mu mel ni ubbi la ñu bunt ñeneen ñi pourtant ñàkkul am na adversaire ku ci mel ni Tapha Tine pourquoi ñu bañ a ubbil bunt ku mel ni Tapha Tine. dañ ko war a ubbil Tapha Tine ñu mu neex la mu naqar lañ ko war a ubbil bunt bi parce que daf ci bokk. peut que comme ni ñu wax rek dañu ma ragal man terrain boobu du ko jël. Hmm. du jël Euh, ay encadreur nañ ko jëlal benn planification benn graphique boo xam ne dañ ko ci teg mu am cheminement pour dem bëre ak ñoom ñëpp. Mhm. parce que xaw na fi ba waxtaan bëre ak euh, euh, Ama Baldé mais combat mujj yàqu mais tey mosul bëre ak Gris Bordeaux tawaate mosul bëre ak Gris Bordeaux bu ci génnee war a mën a Gris Bordeaux mën na joxaat revanche am Bombardier la de guerre en 2007 ak léegi beaucoup d'entre jaar nañ fi. Mhm. Balla Gaye la même chose benn benn benn yoon lañ mën sa bëree war nañ booy waat bëraat ak moom hmm. mosul donc dafa a seet na ko de parcours dafay am am na fa deux donc ne dafa yaakaar ne day def trois sur trois mu parcours mais il faut que nit ñi dafa war ñëw bokkaat ci ci ci ci ci ci rang bi et eh, donc ko dara parce que ñoom ñëpp ñoo yem ñoo amul benn mbër bu nekk foofu ci ci taa boobu daanu woo. Mhm. Eumeu Sène am na sept défaites Bombardier joxe ma huit je ne sais pas euh, euh, Balla quatre ou cinq je ne sais pas Modou Lô aussi autant donc ñoo ñëpp war nañ bëri parce que Tapha Tine aussi il a quatre à cinq défaites. Mhm. donc yooyu des des des parcours. et Sa Thiès les euh, Yékini junior bëri na Yékini junior mais ñooñu Malick Niang bëri nañ dañu war mën a bëree hmm. donc aspect financier bi daf leen boole peut-être ay aspect sportif la jël di teg vraiment daan kii kii daan mën naa leen non yooyu yëpp day yàq sport CNG na moo war a jël seen matukaay hmm. def ay planification des zones géographiques ñu mën a bëri seen biir hmm. comme le football se fait comme le basket se fait comme les jeux de discipline se fait donc loolu CNG mission la parce que mission da nga joxoon mu promouvoir la lutte mais pas uniquement que promoteurs yi di jël di tëgg seet ñeneen ñaa ñu tëgg leen mais finalement ñuy des les années va moom it ça passe vite le sport va vite l'âge va vite hmm. donc ñoom ñëpp dañuy obligé génn ci làmb ji te dootuñu bëri xool le cas de Babo yi bi defet le victoire la génne li muy dal ko donc kooku référence bi ñuy wax aussi c'est de problème de de catégorisation de poids hmm. moom ak Bombardier te bu ko Bombardier daanoon Bombardier daanoon kon tey CNG doon def ay ay ay ay planification wax tel poids ak tel poids dañu bëri hmm. certes am nañ ci sax gaa mais poids lourd une fois nga ne de de rek tu poids lourd. Hmm. parce que différence différence de kilos yi parce que boo ko seetee du ëpp trente kilos. te hmm. trente trente de dara dara dara dara par rapport à une force musculaire avec manœuvre de force ou nga force de manœuvre. donc loolu dara. donc jàpp tey loolu. CNG war nañu mën a xoolal bu baax mën a ubbi làmb parce que am na tey yi ma doon cité bu ñu kenn daanee am na ñu bari door jël roi des arènes Ama Baldé tey bu daanoon Modou Lô donc roi des arènes croix pour Lac de Guiers croix pour euh, Boy Boy Niang croix pour Eumeu Sène croix pour euh, Sa Thiès vous voyez ce que ça fait mm-hmm. donc ñooñu ñëpp dootuñu bëri dootuñu bëri parce que moom moo ko mm-hmm. loolu chance aussi su ko Lac de Guiers jëlee aussi ñooñu ma la cité éliminer mm-hmm. Eumeu Sène boo aussi waa Pikine ñu éliminer leen donc seen chance day wàññeeku. donc loolu loolu ñoom ñoo war a set li ñu mën a set. de set dans un cadre géographique dugal gars yi ñu bëri ci biir. ku nekk ku mën sa morom nag nga jël nga jël couronne hmm. lu mooy Eumeu Sène Lac de Guiers ñu ngi xaar tamit yeneen affiche yu rëy waaye bi gën a jege xëy na Modou Lo Ama Baldé ñu bëri jàppee ni kon choc générationnel la moo ne de ñaari équipe bi ñaari euh, mbër yi mun a mosoon nañu laale euh, ci ay jamono boobu la combat tamit noo ko jàngatee Omez. waaye bon boo seetee ñooñu aussi ay ay la ñu ay morom la ñu. parce que nit ki moom boo ko magul plus de dix ans quinze ans magoo mhm. mais trois ans quatre cinq ans donc c' est même génération. Mhm. parce que parce que dañu bëri mbapat bi ñu gën a nekk xale boobu ak léegi yàgg na. Mhm. ñoom ñaar kenn fàttaliku ko donc am na euh, ñu koy fàttaliku am na ñu koy yor illégitimement sont là euh, Modou Lo moo ko daan te même Modou Lo bi ko te ñàkkul na ko muy mbapat. amul xale yoo xam ne ñu ngi ci làmba ji daan nañ ko hmm. xañ ne dafa pësugul rek hmm. parce que ñooñu ñëpp tase nañu ay mbapat daanante nañu hmm. ñoo mais tey seen combat bi nag mooy na moytu def comme ni taxaat ni defoon Tamba Balde moytu ko xeeb ko négligé ko ne ko maala man trois des arènes là ainsi de suite mu am ci mbetteel te bu ko defee jëriñ am lu ko ci bett Ama Balde c' est quelqu'un qui monte en puissance parce que bari nañ fi Ama Balde Reug Reug Boy Niang euh, Sa Thiès ñoom Garga ñoom ñëpp sont en train de monter en puissance parce que ñoom bu loon bu ñu woon augmentation d'âge bi d'ici trois ans di nga compter au moins trois lutteurs ou quatre yu génn donc ñoom ñoo des. Mhm. donc nañ teel a jël xale yi bëre ñoom respecté leen respecté seen entraînement parce que li ñuy wax ci olof yi yàpp des màgget ku ci entraîné ku ci bu baax lekkoo lekkoo bu baax digéro exactement sa entraînement xale yi mën nañu indi sa mhm. donc Modou Lo c' est quelqu'un quand même nit la ko xam te boo seetee parmi les ténors duma ne moom la mais am na au moins une bonne hygiène de vie une bonne ligne de vie boo xam ne ni tey caax saxal du saax sax combat da koy teg si yoon da koy mesurer da koy nat bi mu ko gën a métti mooy defar Balla Gaye bi et pourtant a bien bu bu bu bu bombardier bi tout le monde que il a un de rapport de force qui était dedans mais donc c'est quelqu'un quand même qu'il faut tenir en compte parce que Modou c'est connu tudd xarañ ku xarañ la ku xam combat la ku bëgg lu muy def la. Hmm. Ama Baldé bi aussi parce que référence boo jëlee Fala Baldé papaam référence référence la au de Pikine il a besoin quand de ramener comme l'a fait Tyson comme l'a fait euh, Eumeu Sène indi roi des arènes parce que loolu aussi nekk na ci ay objectif hmm. parce que nit bu objectif rek je pense pas que tey ce n'est rien que kon lamb ji dooraat gannaaw mbas mi nga xamante ne daf ko lompañaloon teg lépp ci suuf dolli si bi ñu gis ni kon xëy na public bi duñu ko bàyyi ñu def na nanu daan def lan ban jeexantal la mën a am ci lamb ji ci boppam ak performance bi nga xamante ne mbëri war nañ ko am. waaw non public bi moom la naka jëkk du Séné du lamb ji rek et puis du Sénégal rek parce que àdduna yëpp la. sport bi dans dans le monde entier ñëpp dañu trouvé ak le Covid bi donc ñuy dem gradin mu nekk ay huis clos mais làmb yi demoon nañ ba d' accord sax ne parce que jafe-jafe yi ñu am yëpp dañu huis clos mais par mu am changement ñu d' accord ne au moins dañu am à 3000 à 5000 spectateurs. Hmm. ñu ko dem pour cette année. ñu toog a càgg ay diir ñu ne bon euh, mën nañu am au moins la moitié du dix mille à onze mille ñu ñu mën a dem cette année. mais loolu lépp euh, bu fekkee ne euh, promoteur yi jël ñu ko en compte day mettre si ñoom. Hmm. mais heureusement que ñu ngi ciy félicité Gaston parce que ku xam événement la ku man bés de ku man ku xam li muy def la et en plus ku mu jël ko tuddee drapeau bi euh, le président de la République euh, monsieur Macky Sall donc foofu war na leen ne au moins war nañ ko mën a jàppale jàppale promoteur yi xam ne ñu ngi ci suuf nga xam ne amuñu loolu donc euh, li ñuy dem tendance ak par rapport ak mission bi ñu jox ak seen feuille bu route bi jox ak cahier de charge bi ñu jëm a seet ñu ñuy promouvoir encore la lutte jëm ko jëlee au niveau de comment ça s'appelle euh, du CNG pour yóbbu au niveau de la fédération. Hmm. loolu nag liggéey bu rëy la bu rëy le la biir am et euh, pour ça aussi il en féliciter euh, le le président sortant Alioune parce que waxuma sax niveau Sénégal mais niveau africain ak niveau mondial fii la. Hmm. Alioune Sarr am na fa liggéey hmm. Bira du coup du coup ku bees ci làmb parce que nekk nekkoon na Kaolack ci CRG bi. Mhm. Euh, tas nañu deux fois drapeau de l'État danaa ko gis muy encadrer l'équipe de Kaolack euh, donc bu ñu weetee yor CNG di ne fexe te ñi difficulté yi xam ne amoon nañ ko mu mu ko mais fi mu néewee nag dafa nekk ñëw bu compliqué parce que booba mbër ñu ngi ñu kaas euh, arbitre yi grève nañ fii amateurs yi mais la même chose. Euh, les entraîneurs war ñu dimbali loolu sax la bonne fois encore les entraîneurs de lutte dañ leen war a jàppale parce que c'est le seul même le président de lutte souvent doo ko sentir ci écrit bi mais y les entraîneurs ngay gën a sentir à la peine c'est parce que j'étais entraîneur de lutte mais je ne suis plus de lutte mais yortuma écrit mais ñi ci écrit ñoo gën a sonn président ñoo gën a sonn parce que mbër bi bu amul combat bu ko neexee mën na toog deux mois di ñëw sax écrit bi mais l'entraîneur est tenu tout temps d'être donc ñoom dañu war a jàppale si seen liggéey bi ñuy def pour que au moins le CNG mën leen a aider parce que ñoom seen bopp ñoom ñëpp ils font partie de la direction technique. Hmm. voilà. yow consultant nga sa xam-xam màcc ci wàllub kon làmb nga nekk entraîneur de lutte jiite yoon tamit lii di direction technique régionale Omès Diagne ñu ngi lay gërëm bu baax. Jacques maa lay remercier merci beaucoup.